waxtaan bu njëkk bi maanaam situation de prisonniers politiques donc Karim yow dañuy bàyyi dañ lay bàyyi un peu nga wax ñu un euh, seen situation ak ñan ak ñan lañ ci jàpp ñan ñoo ci des ci kaso bi nga defal ñu un état des lieux par rapport ak prisonniers politiques. waaw déjà man moom xam nga euh, am na si ñoo xam ne bi ñu leen arrêté mm, man si kaso bi dama fekk quoi euh, détenu yi ma yi nga xam ne déjà man mooy ñi ma si gën a jege Ousmane Sall ak ak ak Bayna Gueye mm-hmm. mais arrestation Nit Dof. am je pense que man aussi si biti la ma fekk. fekk na juste ma génn tuuti ay deux trois quelques semaines laa def après ñu ñu arrêté nit dof quoi euh, seeti naa nit dof xam nga euh, je pense que gis naa Ousmane Sarr bay naa euh, seeti naa aussi Mama Amidia xam nga bien avant man ñu may arrêté sax Mama Amidia ñun dañoo amoon benn programme boo xam ne dañu ko waroon defal moom quoi muy deux heures de temps pour Amidia. Mhm. dañu dañ koy def n'importe où si temps bi rek dañuy dem fu ñu neex ñu dem taxaw fa. Euh, expliquer si moom wax def ay expliquer def ay proximité aussi dem si dugg si nit ñi expliquer leen jël ay photos expliquer ni kii yaay booy la boo xam ni. Mhm. Euh, Sénégal da ko jàpp tëj ko euh, jiiñ ko force force spéciale. alors su ma li ma xam si peut-être am na ñeneen ñoo xam ni ñoom arrêté nañ leen bien avant man bàyyi sax yàggul. mais bien avant ñu may dañ leen arrêté woon muy Papito Kara ak. Ousmane Diagne mais ñoom gis naa ni ñoom ñoom ñoom libéré nañ leen quoi. mais am nga Pape Ndiaye li ñu mën a wax si ay détenus politique Euh, dafa simple quoi si dafa nekk luy leeral luy expliquer ni état pouvoir exécutif di piétiner ci pouvoir judiciaire loolu kese la mooy naka la monsieur le président de la république du Sénégal Alaaji Macky Sall di utiliser justice sénégalaise di dem di def pour xoñoñal ak xoxotal askanam maanaam li rapport bi naan gouvernement su nanguwul liggéey na police bi lay yokk doole def ko xaju këram di ko bëmax muy songu néew di doole loolu ci firi bi mooy maanaam li ma bëgg wax mooy ni Macky Sall di utiliser justice bi. Mhm. di ci di ko jël pour di pour ay freiner ay benn benn benn révolution sax laay wax ko pour fitnaal wala tiital wala pour xoqatal benn Assane Diouf xam nga wala benn Karim Gueye wala benn nit dof ñoo xamante ni mu wër ko wóor nit ñi ay nit la ñoo xamante ni amaana mhm. ñoom euh, li li sonal yenn nit yenn homme politique yi sonalu leen quoi. mooy comme li gars yi amee problème ay passeport diplomatique ak am ay oto yu rafet ak am ay entreprise yoo xam te dañuy am ay problème fiscal ak yooyu wala topp ci parti politique ak agrippé wu ci ay pouvoir ñun yooyu intéressé wuñu léegi ñoom loolu mu gis ñoom loolu nag mu xam ni ñun amul fenn fu ñu mën a jaar li mu doon xooxatelee di ko tiitalee politiciens yi ñun mënuñ mënu ko réussir ci ñun alors léegi li ñu mën tiitalee mooy téye ñu si kaso boo nekkee si kaso bi da ngay comprendre ñu téye Karim 4 mois Karim génn dugal nit dof mooy bàyyi nañ nit dof quoi. c'est pas intelligent parce que par exemple comme nit dof nit dof dama wax ma ni on a le discours on défend le même leader on a les mêmes principes man su ma taxawee di wax dafa mel nit dof mooy wax. nit dof su taxawee di wax day mel ni man maay wax. Assane suy wax li mu li muy wax loo xam ne man dafa may bett du bari li ci ëpp parce man loolu du nekk sama xel la. parce que dañoo bokk même Sénégal moo toll foofu dañoo toll nekk ci révolution ci conscientiser masse boo xam ne xeex bi dafa yàgg du tey man damay dama am benn message wax ji dëgg dëgg dëggantaan balance émission bi justice la quoi mhm. mais la question qu'on a se posée mooy est-ce que justice am na Sénégal. d'accord léegi léegi bëggoon naa nga ñëwul ñu kaaw par exemple ñi nga xamante ne bàyyi nga leen foofu lan nga ñu mën a wax ci ñoom. Euh, euh, lan mooy par exemple naka la ñu dundee seen kaso yenn message lañ la yóbbante naka la ñu nekkee. foofu noonu waaw déjà kaso moom je pense que loolu moom xam nga Pam Yaay dañ ciy wax wax waxaat wax waxaat. Mhm. anytime mais dañuy wax rek wala fi dañ ne euh, sama maam da wax xam nga man man prison Pam Yaay li ma si a marqué. mooy mooy manque de respect bi nga xamante ni am nañ ko envers les détenus te te dafa am loo xam ne il faut ñu souligner ko c'est mooy manque de respect boobu du waa administration pénitentiaire ñoo ko am ñan ñoo ko am mooy la justice sénégalaise bi nga xamante ni ñoom defuñu seen liggéey ni mu waree magistrat yi bon pas la quasi totalité du ñëpp mais en réalité ñi ci ëpp ci ñoom seen liggéey defuñu ko ni mu waree te loolu moo waral kaso bu mel ni mu mel man kaso gis naa fa ay ay yoo xamante ni man pour man loolu Sénégal war na dépasser loolu yàgg na quoi war na ko dépasser yàgg na. ba léegi nii ngay gis ay nit yoo xam ñaan la ñun néegi dafa xat quoi suñu néegi dafa xat ba mënuñu loolu répétition yi day nekk xam nga da nga ciy expliquer di expliquer waat rek quoi te la nekk war a mën a def ba mën a yembal statut d'abord statut xoolaat statut administration pénitentiaire loolu Pape Ndiaye loolu Sénégal war nañ ci wax ñu bëri duñ ko wax war nañ ko lijjanti dafa am benn côté boo xam ne à chaque fois aussi Sénégal dañ koy expliquer ci kaso yi bu ñuy wax toujours on défend les détenus mais bu kaso amuloon Sénégal toj te administration pénitentiaire dañu leen dénk lu metti dañu leen di dénk ay nit yu doy waar lañ leen dénk jeel bi ay doomu aadama yu doy waar ñoo fa ne ñoo xam ni léeg-léeg dañuy génn tey nga toog ci kaso bi yow def fa quinze jours ñu fekk si wàlla si kaso bi mm-hmm. récidiviste waaw de c'est-à-dire en loolu mooy parce que xam nga ni ñi dañ naan non xam nga peut-être euh, société bi ni mu bindoo la certes mais des fois di nga nekk prison mais prison jàng la boo utiliser sa xel di nga gis koo xam ne lay jariñ da ngay xool xeetu détenu yi nekk si jël bi nga defaru si mais lu ëpp si jëlmaan yi maanaam boo 90 pour cent wu jëlmaan dañoo ñàkk jom dañoo ñàkk jom Pape Ndiaye loolu il faut ñu wax leen ko man jëlmaan laa man maa ngi sama cinquième mandat dépôt man jëlmaan te wax naa leen ko si kaso bi te ñoom ñu ngi may seetaan man mënu ma concevoir ma toog léegi ay jëlmaan yu waxtaan di wax bu ñu génnee non grave loolu méttiwul léegi affaire bi jaratul ngay kii da ngay dox ndànk rek soo ñoo xam dañaa la su ma génnee du ma bàyyi sàcc du ma bàyyi sàcc xam mhm. jaay te nit a ngi fi toog di jaay café Touba sa buntu kër dem ba moom di dem ba gérer loo xam dalay jaaxal nit a ngi fi di taxale ci lu nekk quoi man pour man tey émission bii nii man message boobu laa bëgg indil Jelmani quoi li ëpp si kaso bi te tey bu ñu wax bu ñu wax bu ñu ñëwee di ko dellu soit di ko dafa am ñoom dañaa la ay Jelmani lañ quoi ñoom Jelmani lañ quoi ñoom ñoom Jelmani lañ titre foncier lañ am si kaso bi hmm. te Pam Ndiaye waa bu ñu demee si pénitentiaire administration pénitentiaire xoola seen job moo gën a metti si joobu corps yëpp te corps bi mooy corps bi ñu gën a manque de respect ci Sénégal xoolal est-ce que xam nga ni euh, gendarmerie bu buy romb péage day euh, du fay péage bi police buy romb péage bi du fay mm-hmm. am am sax pénitentiaire bu ñu romb péage dañuy génne seen i poos te job bi ñuy job métti na trois jours la ñuy job enchaîné ko du yow da ngay toog ñetti fan doo dem sa kër xamoo sa jabar doo mu nit yoo xamante ni dem xam nañ xamante ne ñoom xam nañ jalmaani bu baax Pam Ndiaye ni ma lay xamee nii Pam Ndiaye mhm. ndax yaa nga toog émission ñoom noonu lañ xamee jalmaani da ngay tëdd 4 ans dem toogaat ñoo tëdd 6 mois loolu mooy 90 pour cent wu jalmaani il faut ñu waxante mhm. bëri ñu nekk si kaso bi nekk fa accident nekk fa di dem di dem génnaat doo leen gisaat accidentellement la ñuy dugg yàlla dañuy juum mais ñi ci ëpp ñi nekk si kaso bi tey feesal ko dell dañoo ñàkk jom dañoo ñàkk jom Sénégal metti na mhm. mais nit ku nekk am na loo xamante ni yow yow nit da war a gore sa bopp yow ok on peut on peut pas être là chaque fois di ci ay non jël bi ni ñuy tëddee. ni ñuy tànqamloo nit ñi da ngay jéem a fexe nga bàyyi jël bi jël du dëkkuwaay. ok da ngay dem jël Pape Ndiaye nga dem heure añ nga xool maire yi indi añ yi. Mhm. sunu yaay nu ñu sonnee demal visite nga xool maire yi ni ñu sonnee ci seen doom yi. sonn bay bëgg dee dañuy ran dang dang yi jugee fu ay jugee fu sori ñëw ba Sébikotane pour indi añ indi ay ndogu. Mhm. te booy chaque jour bu ñu génnee dañu kone di agressé dañu kone la fois passée maa ngi dégg maa ngi dégg benn histoire bu kii di expliqué Tafa Tafa Tafa euh, Tafa Diop. Moussa euh, Diop maa ngi ko expliqué mu wax si jëlmaam di wax benn benn problème bu amoon benn jeune genre boo xamante ni dañu marché bi dafa tas ñu marché bi tasee ñoom ñu kontaan di après gendarmerie ñëw daax ji leen xale bi daw ñu dóor ko goon ci tànk yi expliqué mais en réalité est ce que est-ce kenn du taxaw ne la sama doom kenn du taxaw ne la sama doom agresseur la Pape Ndiaye nañu waxante dëgg booy dañuy def bu match jeexee wala lamb jeex ñu garder seen i jaas si fekk maire bu jaay jën ba taxaw dajale cinquante mille ci poosam di yow quatre heures du ñu dóor ko jaas ji nangu nafal nafal mais est-ce que est-ce que loolu justifié na ñu rey ko tamit waxuma dañ ko rey de waxuma kenn warul rey kenn Pape Ndiaye kenn warul rey kenn de xam nga dama ni gendarme bi li mu gis ba mu naqari ko mu rëcc ko a fane moom li ko yóbbu foofu noonu dimension boobu noonu loolu du ay gible ay contentement gagné match bi bu ñu naxante faut pas concevoir la mais du ko du ko rey waaw d'accord fan la ko dóor ci bopp ci ta ci poche la ko dóor on défend pas ça mm-hmm. y a rien qui justifie pour gendarme di génne goon di ko dóor ay ay ay ay jeunes a rien qui les justifie tey ñoom seen matuwaay bu matoon dëggantaan booy du am fitu traîner foofu sax ba fay agressé mm-hmm. donc waxtaan suñu biir ñu waxante dëgg mm-hmm. wax jëlmaan yu

Euh, seen bopp jàppale ñu seen i parents. ok Pape Ndiaye réew mi fi mu toll nii il faut ñu waxtaan waxtaanee man dama am lu ma metti si waa kaso bi. te dañuy yóbbante ki lay woo di la yóbbante boo ko laajee ñaata yoon nga def jël mu ne maa ngi sama septième mandat de dépôt. fan lañ koy teg man foofu laa bëgg ñu dellu soir fa léegi nag gor gu nekk war ngaa nekk gor man hmm. jomm naa man taxaw fii nii sama doom di ma déglu may taxaw di defan ay nit yoo xamante ni fekk si bu taxaw ñu dóor ko mbañ nangu alalam bërki dem sama jabar dafa taxaw yor téléphone am yor sama boot sama doom benn booy yor moto dóor ko mbéj nangu kóol bi te booy boobu boo ko toppoon ba jàpp ko mi ngi si quatrième mandat dépôt noonu la fa demee man dugg naa kaso fekk fa koo xam ni benn gain la boo xam day jël ay téléphone téléphone yi nii lay wax booy ku ma indil tooy iPhone iPhone iPhone 12 ma jox la 300 000 euh, francs booy temps bu dëgër bii te ñu tëj ko si jeel bi te boobu moom mu ngi woon si cinquième mandat dépôt moom. cinquième mandat Pape Ndiaye ñooñu ñoo nekk si jeel bi te ñooñu man moo tax émission balance dama njëkk mhm. message bi ñëw ma fii pour couvrir benn jeel man. dama ñëw pour wax ne ñu bàyyi jeel bi dimbali seen yaay yi yaay yi sonn nañu ñu xam ni Sénégal fépp la dëgëree ñii dañuy xëy du ñu am paas mais dañuy jaayante di góorgóorlu café Touba boo koy jaay bu gaata ba gaat di nga wàccaale deux mille francs wala deux mille francs par jour wala Fuuta yii di jaayante di rey seen gënuñu leen booy léegi nag man message bi mooy bi nga xam ne moom laay tënk nag ci côté euh, waa administration pénitentiaire mhm. mooy mooy mooy pour état du Sénégal gestu leen Macky Sall xamul kaso moo tax respecté wul administration pénitentiaire Macky Sall xamul kaso moo tax def Ablaye Wade moo xool statut statut administration bi mais xoola euh, Macky Sall xamu ko Macky Sall dañuy yabal rek ñu dénk la nit koo xamante ni xoola yow benn fekkee jàng na jàngam soriwul la su fekkee xamul xam li mu xam bariwul ñu dégg nit koo xam ne amul jom ñu dégg la ay nit yoo xamante ni ñoom dañuy jaabante rek te duñ la wax dëgg jalmaan pour nga gis nii carrément boo xam yàgg na dugg jël mu wax la dëgg ni mu demee ak a jafe mm-hmm. foog léegi nag yooyu noonu ñu jàpp doomu aadama jàpp un homme bu ñëw taxaw nekk ci service boobu di liggéey di surveiller nit ku mel noonu mhm. nit ñi te dëkk rek dafa metti mhm. da dëkk sa jabar sa ngeen am problème waxtu maa nga dëkk ku doy waar koo xam dafa doy waar di jàppante ci kaso bi nga dëkk moom war ko yor war ko gérer donc ñun dañu am njukkal bu ñu war a delluwaa administration pénitentiaire